waaw di jaale waa Sénégal rek dañu fi teewaloon président Macky Sall parce que dañuy fàttali ne moom conseil spécial président la. Mhm. ñu ñëw fii aussi pour sargal euh, jaale ñi nga xamante ne ñooy famille bi jaale sportif yëpp. Mhm. tiis la tiis moom bu amee ci jullit day delloo boppam ci yàlla rek. Mhm. ñu ñaan yàlla xare ko àjjana. di retenir ci moom nit ku baax nit ku engagé wu. Euh, nit ku nekkoon au service des population wax naa léegi ci sama kàddu ne bind na ay livres. yuy aidé inspecteur des impôts yi fiscalité liggéey na ci réew mi loo xam nit ñi mën nañ koy fàttaliku 2002 ngi fi moo gën a euh, récent mais kaddu yi mu daan wax di ko ñaax nit ñi aussi loolu yëpp ay référence la ñu ñaan rek yàlla xare ko àjjana waaw 2017 euh, d'ailleurs nit balaa nga xam taxawaayam nga walbati question bi ne bu fi newuloon mhm. ba ñu ñàkkee métti woon na ci ñëpp même man mi ministre des sports mhm. ñëpp a jaaxle woon waaye ba mu jëlee kàddu defal na ñëpp defe naa defal googu moo tax ñu dellu si continuer liggéey bi ba yàlla may ñu ndam moo tax ma ne yàlla mënu ko woon bañ a bàyyi muy dund ba fekkee saakuru Sénégal loolu defe naa ne bànneex la woon ci moom malgré la maladie merci